numéro 2 face à Cokar Bala boobu mooy troisième combat de la soirée sama gars na Cokar Bala pare na bi sifflé na génn seen diggante Mbaye di foncé numéro 2 Thio Karbala Thio Karbala Mbaye di foncé numéro 2 combat bi dem na waaw waaw jëli ko Thio Karbala jëli na ko attention Mbaye di foncé Mbaye di foncé numéro mi ngi noonu dem na ci Baye Mandiaye ndeysaan ñoo bokk seen géejawaay ñoo bokk seen géejawaay Mbaye di foncé numéro 2 wane na boppam dem na masinam ndeysaan bëre na bëre bi daan na jël bu rëy daan na jël bu leer daan na jël bu amul benn werante ndeysaan géejawaay géejawaay Baxdaat Unaas seen doom a ngi noonu bëre na bëre bi ndeysaan oo oh, cookaar balaa siisu na cookaar balaa siisu na bëre na daanu ndeysaan ndeysaan bëre na daanu siisu na Mbaye di foncé numéro 2 daan na ko Mbaye di foncé numéro 2 daan na Karbala mi ngi noonu jël ko na le troisième combat de la soirée, troisième vainqueur de la soirée, bail du français numéro 2.